yeewu ak lu jëmmanti am nag ku jéegi ñoom ña ngay dajaloo ngir doon genn say mën a jàmmarlook nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye ci élection législative yii di ñëw ubbil journal bi di l'info yéene kaay ku jéegi ba normela ci élection présidentielle yi weesu ba léegi kenn déggatu leen moo tax nag tas gi nga xamante ni tas nañ ko assemblée nationale war naa mën a tax ñu doon gennuk say ngir waaja a yi lee ak lu ci mënti am journal bi nee na akay ñoom nekk nañ benn say ndax sos nañ sax ab kuréel wu tudd ateel ñoom ñëpp nag ñi ngi bootu ci ginnaaw Xalifa Ababacar Sall nekk nekkoon fi meeru ndakaaru Walf Quotidien ne seen bennoo googu du yàgg du dem fenn li ko waral moo di kenn ku ci nekk da nga jàppe sa bopp ni kàngam nga ba noppi nag da ngay bëgg a jiite te nag ñoom ñëpp nag seen intérêt moo leen tax a jóg Sud Quotidien nee na jëwriñ bi nga xamante nag moom lañ dënk biir réew mi di Jean Baptiste Tine moom mi ngi waajal bu baax élection législative yi ndaxte tey ci samedi ji woolu na ñi nga xamante nag ñoo di parti politi yi coalition yi ak ñëpp ñi nga xamante nag ñoo séq élection yooyu le ngir ñu waxtaane processus électoral bi reddition des comptes mi ngay wëy le quotidien yéen kaay dina nettali bi nga xamante ne nag ña ngay wëyal mbir mi Lat Diop moom takk deru digg yi woolu nañ ko tey ci lu aju ci reddition des comptes l'observateur moom it dellusiwaat ak ñun ci déglu gi nga xamante ni déglu nañu homme d'affaires bii di ab Abdoulaye Sylla jàkkaarloo mag takk der yi nag ëpp na fukki waxtu journal bi ne liñ ko jot a laaj bokk na si ñaari junni ak juróom-ñaar téeméeri kilo or yi nga xamante ni nag génn na réewu Sénégal jaare ko ci benn jet privé moom na tontu gi mu tontu l'enquête enquêteurs yi mi ngi ci biir l'observateur Abdoulaye Sylla nag mu nañ ko bàyyi mu ñibbi këram waaye nee na ko bul génn réew mi da ngay toog rek ba heure bu ñu la soxlaa daal lay woo Lat Diop ca jamono jooj nag moom mu war a wuutali ca dikk ngir ñu déglu ko ci mbiru reddition des comptes bés bi le jour dina xamal partenariat mondial pour l'éducation nee na Serigne Bay Thiam moom lañu tab mu nekk conseiller de haut niveau journal bi nag ubbi xel gu yaatu ci pharmacie yu bëri yu ñu samp ak njaayum garab bi nga xamante nag dara teguwul ci yoon ak yéen pharmaciens yi ñoom ñooy rey seeni promotion ndaxte ñetti téeméeri dépôt xayma nan ka téeméeri garab yoo jël ñuy jaay juróom ñetti fukk yi amuñu visa te anam gi nga xamante ne nag noonee la ñuy denc garab yi jaarul yoon mën naa indi njeexital wér yaram yi nga xamante ne nag ñooy aji woy defandiku yi marché occas moom moodu moodu yi ak bool bool yi luy njiig ñooy njaak enquête yéene kaay yi dellusiwaat ak ñun ceeb dossier bu am solo ñel wàllu tatouage ak piercing yi nga xamante ne ndaw yi léegi moom lañ jël ñoom sax nag moom foo dem di nga gis ndaw yi surtout jigéen ñi di piercing ak tatoué te nag fan koy def ci yaram yi fu sensible lay doon gis-gisu l'islam ak christianisme nag mi ngi ci biir journal bi le professeur Boubacar Aye Diatta di dermatologue moom nag nee na produit yi nga xamante ne nag moom la ñu utiliser ci tatouage yi mën naa joxe li nga xamante nag moo di feebar bi le di cancer tàggat yaram ak réew mi sport nee na stade Demba Diop bi nga xamante ne nag moom lañ doon yeesalaat communication bu fédération sénégalaise de football journal bi di dellu siwaat ci Al Nassr bu Sadio Mané ak seen entraîneur bu bees bi di Stefano Pioli nee na démb nag lan làpp-làpp yu metti Al Ettifaq